dàkk bu kër Momar saar am bile melokaan boo koy xoolee ci kaw mu di ab melokaan bu jéggi dayoo yaatuwaayu bile domaine agricole communautaire moo toll ci juróomi junni hectare suuf mu ëmb ay yëngu-yëngu ca lópp mbéy mi ak ay tool waaye tam mbirum sàmm li ci mel ni yarum xar niki noonu mbirum élevage ci wàllu yarum ginaar fii nag ginnaaw mu taxawoon ab diir activités yi ñoo fi dooraat. depuis période boobu ba léegi ñëpp xam nañu bon lu bëre dañ ko réaliser manam euh, série, yi xaw ñu koy waxé ci olof mais ay jumtuwaay yo xamné ne pour pour mbéy la mbéy boo xam ne rentable da am rendement bu important euh, muy euh, sali, bureau yi irrigation bép matériel bo xamné day dugg bu ñuy permettre tey ñu mëna a ou bien ñu mëna euh sàmm def élevage donc tay mom lepp pare na pour vraiment xalé yi ñëw liggéey fi dak bu Kër Momar Sarr dañ fi amal mbirum formation tagat fi ay ndaw ci walup mbéy mi wala sax sam ginnaw app salle de classe à ciel ouvert way tam ci walup machine ginnaw ay atelier stockage wala mécanique activité yi dooraat file waa Prodac fas taxawu ndaw yi ci walup emploi des jeunes ginnaw nak app financement. fi 6 milliards 200 lañ fi investir ci xaalis mu nekk lu am solo et loolu permettre nañu nous avons un am résultat concret en termes d'installation, en termes d'infrastructure. infrastructure tey soo xoolee tout le dispositif les équipements les dispositifs d'encadrement, les ressources humaines pour pouvoir supporter des activités de production nous ngi ici, ci dag bi dagu le Momar Sarr soo fi ñëwee bëgg liggéey ci zone bi fii des andi tracteur soxlawoo recruter ingénieur agronome soxlawoo recruter technicien agricole soxlawoo dara da ngay ñëw ñu xàllal la jox la suuf accompagner la nga mën a ñu andi dispositif bi mu accompagner la nga mën def sa activité lolu nek lu am solo lo xam day traduire vision président de la république ci liguey bi nga xam ne namm na ko pour accompagner jeunes pour ñu mën a am xey ci suñu réew mi fii. état bu Sénégal am fi taxway bu am solo mu di ab ngir gëna a dooleel pexe yi ngir jot lim gu takku ci wàllu emploi des jeunes jëwriñ ji.

te loolu ku ñëw fii tey euh, fii di Kër Momar Sarr di nga ko constaté bu baax a baax Kër Momar Sarr tey euh, dag la bu pare waaye ñun dañ ko jàppee défi kontaan nañu bu baax mu pare mais dañu am yeneeni objectif yoo xamante ni ni dañu ko war a réaliser parce que demande bi li ma ko waxee sànq demande bu forte la mais tamit dafa pressante